lañ si àndal. mbokk yi Amin Ndiaye ñiibi bi doon ñiibi ñiibi lu ci assemblée nationale di dal Lamine ak a panga ñang ñàkkee teggin kii di Serigne Moustapha tuutee des mu ñibbi ñiibi te du yóbbaale bakkan yéeni kaay bi di Walf Quotidien talaata rëll lañ ko dóor ci bisub alxames demb ci assemblée nationale ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddu di gaaruwaale ak di ñàkk teggin Serigne Moustapha Walf Quotidien démb ci assemblée nationale mu ñëwaat taxaw ne la mu waxoon moo ko wax rëccu ci dara gars yi moso Moustapha yi ne ko mbéjum kanam borom mooy mi koy fajal boppam moo tax ñu door ko mbécc réll ca assemblée nationale yéen a kaay front de terre bi ne Ami Ndiaye ji bi ci hôpital la yeewoo démb Massata Samb ak Mamadou ñaam bu yeewee askan wi ñoom ñoo ko duma démb ca assemblée nationale yéeni kaay bi di enquête ne soxna ya mu bokkal assemblée nationale te bokk ñoom lang bu bennoo bokk yaakaar nee nañ dañuy yëkkati ab plainte clamé ko yoon ndaxte amin ñaa ñi bi ba muy tooñ ñu koy duma nakate yooyu dafa ëmboon quatorzième législature bi enquête ne ñu ngay bëgg ñaaw ci xare bi de institution googule réew mi quotidien ne démb ca assemblée nationale yomul rek ci député yeew yi kii di Diegane Diop Fall moom dañ ko arrêté ca buntu assemblée nationale yéen i kaay groupe promo consulting bi ne la am ca assemblée nationale démb kenn mënu kaa nangu di ay saaga ak a xas jëme ci askan wi yéen bi di critique noonu la ko jàngatee mu ne nag démb gaa yi danoo rakkaaju ba mbëkk miir bi ndaxte fan egg mënoon nañ fa bañ egg lii nag mooy wuré wa nee na këng ni ko gaa ma jëmbal jaa ñi waxee ci la le quotidien ñu ne député yi dañ doon defante démb Mamadou Niang ak Massata Samb bu yeewi ñoom ñoo dal ci kaw Ami ñàkkee teggin Serigne Moustapha ñii bi démb ca hôpital la yeewoo ginnaaw ab malaise femme yi Benno Bokk Yaakaar ne am ñaar ñii bi dafa ëmboon libération ne pagaille générale di pëccëxoo moo amoon ci assemblée nationale bu Sénégal alerte ne ñi ngi wax rek xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam nata mbir mi nag sëb la la ko bënn mu nga ca biir yéeni kaay bi di alerte ne kaddu asa xax ak a xaxar ya am ci assemblée nationale yàgg nañ kaa dégg ñëpp di lu ñëpp na pat rek di seetaan bàyyi waaye bennoo yi ñiy def leen neex rek comme dañuy def dara teg dara du leen ci fekk gars yi fajal seen bopp waaye loolu lépp bu amee dafa fekk ni assemblée nationale njiit la amul njiit la mu am dafa jiite rek waaye du kilifa di Amadou Mame Diop dafa matul la mu doon sees bañ ko teg sees boobu moo dul place am ki jàpp ni moo doon borom sees bi nag di Mimi Touré yéeni kaay bi di mi Rewmi Quotidien ne Mimi démb ci assemblée national wax ji kay moo ko fa wax jëmee ci Ismaïla Madior Fall mi teggoon constitution bi ci atum 2016 na Macky ñaari mandat kase la mën a am maanaam wax na ko benn yoon Macky ñaari mën wax na ko ñaari yoon Macky ñaari mandat la mën am wax na ko ñetti yoon Macky ñaari mandat la mën a am Ismaïla Madior Fall ma doon wax looli le tey jii moo bëgg a wax leneen Mimi ne ko da ngeen doon tappale Mimi Touré ne ko da ngeen doon nax askan wi waaye waaye respecté leen askan wi te xam ne julli gi ñaari ràkkal la boo ko dóoree ba noppi da nga war a sëlmal dem sa yoon Macky ñaari mandat la war a am ci kaay bi di la mandat Mimi Touré feddali fa ay kàddoom yàq lu mel ne xeme Ismaïla Madior Fall jàngal ko waaye tamit ne ko tegul ci yoon mbir mi du nii de nekk ci yoon rek di jalgati ñaari mandat képp la war a am ci yéene kaay bi di la mandat kàddu yi Mimi yooyu le yéene kaay bi di réew mi quotidien ak la mandat ñooy ki ñu ko génneel mandat de dépôt ginnaaw bañ ko ko dóoree moom Pape Alé Niang yéenekaay bi di libération ne Pape Alé ca prison bu Sébikotane tey ji la door ab grève de la faim maanaam day xiifal ndaxte lan ko téye ca kaso ba xamul lu mu doon te xamul lan moo ko waral moom kook lay di Pape Alé Niang moo tax nag mu ne day gedd ñam na du lekk ngir ñu mën a ci ay mbiram ndaxte nag tëj ko ca kaso bi denc ko fa rek ci ay tappale te tegul fenn libéré Pape Alé te wax ci sàcc yi sàcc alalu réew mi yéenekaay bi di libération ne rapportu ARMP génn na waaye ay njombe rawatina ci wàllu corona bi jamono gi ñi couvre fa ak état d'urgence di tëj askan wi askan wi xiif sonn di dund ci coono gu tar am na ñu doon sàcc sunu alal di mbubboo coronavirus pharmacie nationale d'approvisionnement moom ñu ngi koy tudd ci dépense su quatre virgule deux milliards bu dee maire bu Malika xamuñu ñaata lan doon dépensé ndaxte facture ya dara leer ci Dakar dem dikk cellule de passation des marchés ya ñoom tamit ña nga ca mbir ma ndaxte lu toll ci quatre vingt neuf virgule cent vingt quatre millions ci kopparu CFA. ñoom tamit ñu ngi leen koy tudd ministre bi ñu dénk wàllu culture ak communication jënd matériel de protection contre Covid 19 matériel yooyu le ak document d'exécution marché ba date yaag référence ya yooyu yëpp dañ kaa modifié maanaam dugal ci ay tappale mairie Hann bel ay daara yoo xam ne kenn xamul fa ñu féete ñu ne kat dee dañ leen facturé ci lu toll ci cent soixante quatorze virgule deux cent soixante quatorze millions facturé nañ ko daara yooyu tey daara yooyu le kenn xamul yan daara la bu dee DER ak FJ ñoom tamit danoo takk répp ci mbir mi mu mel ne jamono ji ñuy téye Pape Alé Niang ci kaso bi ay sàcc ngi ñu leen yuuxu wooy te kenn jàppagu leen li ñëpp jàpp mooy jongante bi am dimanche ci diggante Sénégal ak Angleterre huitième de finale coupe du monde yéenekaay bi di ko di ne ñett suñu gaynde yi ñoo jaaxal waa Angleterre waaye démb ñaar ci ñoom bokkuñu ci entraînement ba di Sabali ak Nampalys Mendy kii di Declan Rice di militaire bu Angleterre na Sénégal équipe bu am doole de jarta xeeb de waaye Sénégal li mu warta lijjanti mooy bal arrêté maanaam bal yi ñuy jël di ko dóor tamit jaar ca kaw bari na ci yoo xam ni day romb ñu nu koy dugal kon loolu lu nu war a xoolaat la yéenekaay bi di Stades nan la ñu war a def ba sunu gaynde yi Sénégal yi jat ñetti gaynde yi ya nekkee ci Angleterre mooy maytu perte de balle yi waaye tamit dëgër bu baax a baax ci bal arrêté yi El Hadj Diouf ne physiquement ak techniquement danoo war a taxaw mu ne la mu koy fàttali mooy Sénégal France atum 2002 comme danoo njig njigéen nag dóor dóoraat kii di Samba Keita ci yéeni kaay bi dee sat ni la ñu war a maytu mooy Angleterre di am occasion yi bëri ndaxte dugal rek la ñu mën moo tax ñu ci mel ne Ismaël Jacob di latéral gauche bi war a am taxawaay bu am solo ak yéenekaay bi di source a ci coupe monde bi ak na la def ba tànn Sénégal mun a jafewul woon waaye tamit waa FIFA dëgëral gi doon dëgëral ci ay mbiram mu ne moom mës na gëm ni coupe du monde bi dina football mu ne li gën a daw yaramam nag bokk na ci Aliou Cissé ginnaaw match contre Équateur jooy yamu doon jooy Jacob ne gëm na ni bu nu amee taxawaay bu war gagné match yëpp coupe du monde bi mën nañ ci am dam li leerte te wóor mooy jamono ba bal bay daw ca Qatar ku yi moom ñi ngi takkaar naase ci Dakar sëriñ ngóor jëm yi mooy borom kemaan di sëtub sëriñ Mor Ja ku ko xam xam luy kéemaan kii moo ñëw ngir dimbali jàmm ñi ci seen wér gu yaram lu waay di jàmbat bu si jugee mu jug ci sa yaram ku rab jàpp jinne mbaa nga émurit mbaa ndox mu si wala nga néew kàttan ñëwal ci moom lépp lay dindi bëgg nga listixaar gu leer bayre yokkute mbaa lu lay aar bul ko ñëwal seet ci sëriñ ngóor mi ngi tëngeej are xaal hôtel 77 543 27 19 wala andil leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies ah, loolee tax mu dippee ko si faaxu joni joni Cheikh Ousmane dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement général nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii ci Dakar 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli.